Thank <laughs> you.

xool li nga xamanteni moy mooy croissant linéaire ginnaw ginnaaw dal lepp lo xamanteni jëlé nañ ko fa ci information yo xamanteni ni na ci représentant yi nga xamanteni ñoo nekkon ci différents localités nekk ci réew mi bép résultat dal bo xamanteni li di croissant linéaire bi ginnaw loolu dal kenn gisu ko ci benn localité ci réew mi muy mercredi bi ñu genn mais par conséquent jàpp nañu dal tay ci aljuma ji fukki fan ci wéru mai moy doon bés bi njëkk jëmele ko ci wér bi nga xamanteni mom nuñ tuddé vers diggi ginnaw loolu daal lepp luñ ci mëna a sukkandiku daal nañu jàpp ni daal tay moy premier jour donc nañu tàmbali à partir d'aujourd'hui. manam 40e jour bi moy don tabaski doon weer ak fukki fan ginnaw loolu daal ki nga xamanteni moy mooy Konakok daal dina koy annoncer kon nañ jàpp ni daal tey premier jour ci weeru diggi à partir de tay suñ ci tegee 40 jours moy bésu tabaski kon nañ jàpp ni que daal datu tabaski bi leer na ki ko muy ñi nga xamanteni ni yor euh, commission nationale de la concertation sur la croissance croissant lunaire muy kona coque Thank you.